nixmatullahi aleykum xewal suñu boroom is hammat ba mu naree xaw mun ay gaay an yab situ ba ñu tàllal ilaykum jëm si yéen ay diyahum seeni loxo pour def leen lu bon pour dal seen kaw kafa mu arrêté suñu boroom dafa ndar leen ci ñoom ay diyahum seeni loxo an hum wëlis leen wattaqullaha na ngeen ragal yàlla wa alallahi falyatawakkalil mu'minin te ngeen wéeru seen borom ndax suñu borom foofu la julli di war a wéeru seeni mbir xasa jàpp na allahu yàlla misaaqa bani israila kóllëre waa banu israila wa baasa mu yónne minhum ci ñoom isna ashara naqiba fukki gurub ak ñaara wa qaala mu wax suñu borom wax wa qaala laahu suñu borom wax inni naka man maakum maa ngi ànd ak yéen mbooloo yi la in aqamtumu salaata boo leen taxaw julli wa aataytumu zakaata ngeen joxe azaka wa amantum bi rasuli ngeen gëm sama yenantu wa azastumuhum ngeen jàppale leen wa aqradtumullaha qardan xasana ngeen lebal seen borom leb bor bu rafet law kaffirana anhum sayyi'aatikum des na leen jégal seen bàkkaar suñu borom des na leen jégal seen wala udxilakum des na leen dugal jannaatin ajjana tajri yoo xam ne mu ngi daw mu ngi tàccal suuf ajjana al anhaaru ay dex fa man kafara képp ku weddi nag ba'da zalik ginnaaw bu tegtali leer yi ñëwee minkum ci yéen faqad dalla dalalan faqad dalla sawaa sabili kooku réer na nag ci yoon bu jub bi fa bima naqdihim misaaqahum fecc kóoleer bi nga xam ne fecc nañ ko kóoleer bi nga xam ne kóoleer antoon nañ ko seen borom laanahumullahu suñu borom rëbb leen wa jaal naa mu def suñu borom def xuluubuhum seeni xol xaasiya muy nekk xol yi soxor ndax lan yu xarrifuuna al kalima ñoom dañ daan changé baat yi mooy baat alquraan yi an mawaadi yi sa place am yow wana su ñu fàtte xasdan ab cër mimma zukiru bii yi nga xam ne joxoon leen ko mooy lan waaroon nañ nañ leen ko wala yazaalu dañul tattaliuuna ala alqaa'ini dañu nekk di ay wor minhum si ñoom illaa qalilan minhum lu dul néew si ñoom faafu na nga baala anhum ñeel leen na leen baal wasfax na nga jéggale na allaha naka yàlla yuhibbu dafa bëgg al muxsiniina ñi nga xam dañuy rafetal baax na jërëjëf